iqtafa atharuhum ila yawmi ddin bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi subhaanahu wa taala Mustafa sallallahu alayhi wa tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ci bis yu tedd yi nu nekk rawatina bisu màgg bi ne ci suñ kanam nu di ko waajal du juróom-ñett ci weeru safar bis bi nga xam ne mën nañ ci la lislaam am xurriya kaamila nu nit ci la nu ko am ñu bëgg nag joyal waxtaan wi ci foofu rek muy li sabab bis boobu nga xam lépp mooy liggéey bi mu doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi di ko liggéeyal boroomam ngir lu màgg lum doon wut lu kawe kawe kawe ba sunu Boroom defal ko loola tax mu sant yàlla cant goo xam ne xeeb na ci cantu boppam ba tax mu wootee ne ne ko ñëpp sant la yàlla ñaan sun moom àggale na ci ak jàmm te defal na xéwal yaatu te dimbaloon ban man koo dundal ni ko borom bëgge woon te buñu ko defee mu nangul na ko te fulal na ko te nu yàggu ko fekke ñaan Seex Mudu Muntaxa mi nga xam ne moo ne ci bopp bi it sun boom bàyyil na ko fi dëgëralal nu ko sàmmal nu ko defal nu kiimaan fanam defandu nu kiimaan ci ak wéram bu mu àggale naal mu naalal Serigne Touba di ko ko liggéeyal ci dëkk beeg ci yoon weeg ci lislaam ji di ko ñaan njabootu Serigne Touba gépp waaye di ko ñaan suñu bopp nu talibé Serigne Touba yëpp mel ni kon Serigne dundam gépp da ko jeexal ci liggéeyal yonent bi saas ndax gis gi mooy ki gën a yayoo ci bindeef yépp ku ko liggéeyal di ko liggéeyal ci way ci weesar di bind jëmi ci moom ci kanam dañ leeral anam yi ko liggéeyale a xaq jumlatil wara bil xidma bi nazmi wa nasri rasulirrahma wala rasulurrahma nee ki gën a yay ci mboolem mbindeef yépp ci ku ko liggéeyal ci nazmu ak ci nasr muy ci way ak ci wesar mooy yonente bi yërmande bi di Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ba tax na ab liggéeyam lépp mu def ko hadiye ci moom euh, tey nee na liggéeyal ko dëdduloo na ko lépp lu mën a doon te lépp itam da ko ko da ko da ko jënne ngërëmam jaaltu xidmati hadiyatan lahu wa attaji min al ilahi waslahu zahadani xidmatuhu xidmatun mardiya fi xidmati muluki lil hadiya maanaam lam waroon liggéeyal beneen buur bu dul bu dul yàlla da ko wëlbati moom jëme ko ci yàlla liggéeyal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leeral na itam sababus liggéey boo mu doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi du caageen lum xemeem daf caa xemeem mbirum adduna wala mbirum alaxira soxlu ci dara adduna soxlu ci dara alaxira wala moo xam maddi wala maanawiya waa sabab bi sabab bi rek mooy bëgg jëmb ji rek bëgg ko képp moo tax di ko liggéeyal waaye wutu ci dara du du alaxira daani li ixdaami nabi xubbu daatihi bi xubbi rahima lam yasal xatu rahmana yaquuduni li xidmatil muxtaari rajaahu wa xubbuhu lil baari yaquuduni li jannatil maaxir rasul xubbi yadaatuhu wa bi jaadi kon da koo bëgg rek te na nag fu bare bare bare waxe ko nu ne bëgg jëmm ja képp kon moo tamit di ko liggéeyal waaye soxlawu ci mbirum adduna soxlu ci mbirum alaxira moo tax mu waral ci boppam liggéeyal ko mu nekk farata ci moom def ko yitam mu nekk lu mel ni bor boo xam ne da koo gàlloo saxoo ak moom diirub dund xilaami alayha daynu ixdaami nicmati wa ixdaamuhu anqa dalali wa wasmati wax ne samay xalima dama ko def muy borob liggéeyal yonent bi nga xam ne mooy sama xéewal te liggéeyal ko nag moo may dàqal ak réer may dàqal lépp luy gàllankoor waliltu aabidan xadiman bi dalil min ami ay sasin ila amir rahil kon liggéey bi ñu ko liggéeyal ba keroog xam ne kon neen li des ci sama dund lépp dama ko fas yéene liggéeyal ko yonent bi sallallahu alayhi ci di ko sant ak di ko liggéeyal ndem soob na suñu borom yaf na alladi min umuri xat baqiya fi shukri wal xidmati insha rabbiya waaye itam bëggoo gi tax mu di mooy ñaan sun borom waxtu nekk di ko ñaan ne ko nag ma boole ñi koy liggéeyal ci aljanna dana ko wax ci xutba bi bàyyeen bi la jàll wax ne ñëpp wala kenn ku nekk la ngay ñaan yàlla mooy tàbbi àjjana soo ca tàbbee nag daal fa fas yéene nag ne ci sa bopp bànneexu waaye moom képp nga gis muy ñaan suñ demee àjjana mu fay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ko wax ca euh, muxaddamatul muxaddamatul kubra ne wàcc an li mi man yax di moonu fa fil jinaan ndax ne liggéeyal yonent bi saaslam dafa nekk ci moom tedd nga nekk ngeneel nekk xéewal gu rëy ci moom goo xam ne moo ko moo ko dàqal xéewal gu aljanna kaw niya xaadiman nabi wal kitab fadlu min al wahabi la min iktisab kon jàpp ne ngeneel yàlla la kon neen liggéeyal yi bi ko du lu ma fàggo waaye ngeneel lu ma lu ma sama borom baaxel rek jàpp ne liggéey yonte saa sam ba tey tiraanga la ci moom ba tax mu bi xidmatil bashir wa xalimi ilal maziyat yushir jàpp ne it liggéeyal mooy taaru biiram tey taaru bitteem mooy taaru zahiram de taaru batinam zinatu zahiri wa batini maa kawni xaadiman lahu muttabia tax mu kon wëlbati léppam jëmale ko ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa te neen loolu sax daa mel moo gën a kawe ci moom suuf si buñ ko duyaloon wurus ba mu fees dell neen liggéeyal yonent saa sama ko gën a loola moo dàq ci moom loola xullibatil xidmatu naxwal mujtaba wa taaka faaxa mil mil allah de zahaba ba tax na ko nee na sama daraja muy guddi muy bëccëg mooy liggéeyal yonent bi saa sam di ko liggéeyal guddi ak bëccëg mooy sama daraja moom la jàpp muy daraja darajati fi layli wan nahaari xidmatu jaaril jaaril an jaaril anwaril bahaari liggéeyal ki nga xam ne mooy dëkkaale bi yàlla yàlla ba waaye mooy ka nga xam ne borom leer ko ku lool tax mu daa jéggul yàlla subhanahu wa ci lu mel ne gàttañ lu gum gàttañ lu woon ci liggéeyal yon saasam wala wala néeg néegal mu ne bu fekkoon doon doon di musa sax waaye eh, lépp toroxlu la mu ne kon néeg néegal googu ak gàttañ lu gi ma gàttañ ci liggéeyal ko loolu maa ngi koy tugal sama borom lillahi tubtul yawma min taswifi fii xidmatil muxtaari di tasrifi te neen loolu yi nag mooy liggéey bi ma koy liggéeyal nag kenn mënu maa wëlbati ba jël ma ci kenn mënu maa jëmale fenn fudul liggéeyal yonent bi saa sam kenn mënu kenn mënu ko tee def na ka koy def sax daa mel ni am am xelam dafa des safiha man araada ay yasrifani an xidmati muxtaari baabil minani mën a ana kan sax mooy sikki sàkk ci doon gi ma nekk xadiimam bu koy liggéeyal ana kan mooy sikki sàkk loolu anna yashukku ahadun fii kaw nii xadima man joila nuural kaw ni nee na ki jotte nag lu dul liggéeykat yoon saasam kooka ku la ku sànku la ki ma jotte lu dul liggéeykat yoon bi saasam nee na ka ma jotte loolu ka ko jàpp la ku sànku la dalla alladi yadunnu ni alxadim lil mustapha alladi siyadatu tadum man zanni ni gayra xadimi almustapha fa inni axdimuhu bi mustapha nee na képp ku ma jotte lu dul liggéeykatu yéen du saaslam nee na man de dama koy liggéeyal ca nam ko tànne axdimu ila duxulil janna daal xare wala wal dama koy liggéeyal ba kër may tàbbi aljanna te buñ ba tey moo wéy di ko liggéeyal foofu loolu kon tolluwaay bu rëy bu mag bu màgg a màgg bu kawe la majaalaati xidma yi nag yaatu la ci jiitu mooy dafa njëkk a jaayante ak yonente bi salaa ci di ko liggéeyal ubayi'ul yawma rasula mustafa bi xidmatin wa as'alullah alwafa uhahidullah ala akhdhil kitab bi xidmati sawaab nen daal dama jaayante tey laay na ma ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci di ko liggéeyal tey ñaan yàlla mu dimbale ma ba ma man koo matal maa ngi kóllëre sama borom ci jël alxuraan téye ko waaye itam ci liggéeyal yonent bi na saas mi nga xam ne buntu njub mu mel nag anam yi mu ko liggéeyale mën nañ koo tënk ci ñeenti anam anam yi mu liggéeyale yoon saas mën nañ koo jàpp ci ñeenti anam ba ci njëkk mooy topp sunnaam eh, ngën jaamati toppin sallallahu alayhi wa sallam muy topp sunnaam mooy liggéey bu njëkk bi bako ko mooy yeesal ak tasaareel ko diineem yeesal diina ji ak tasaare ko ba jotale ko ci ñépp ña ci war jot ba ko ñetteel mooy saxal di ko tagg tagg yu kawe yu biire di ko dëkk ci mbind ci way ak ci wesal ak ci fànn yépp ba ko ñeenteel mooy saxoo koo liggéeyal ci di julli ci moom sala sañ ci ay mbindam mën a ñeent yooyu ko mooy yi gën a fés ci lim liggéey yoon saas waaye bokk na ci itam tegal ko nit ñi ci yoon mooy jubbante nit ñi def diine ci ñoom def ak njub ci ñoom anam yi mu liggéey yoon saas bu jëlee bu njëkk bi muy topp sunnaam sayxul xadim sun eh, sunniyun kaamil la woon mana lépp lu baat bi làmbo ci maana ci baatu sundiyu nañ ko lam làmbo ci maana lépp daje woon na ci moom ci pas-pasam ci ay julleem ci ay taxawaayam ci ay kooram ci ay asakaam ci tedd ngay jikkoom ci rafetuk ay melokaaram ci yitteem ju kawe ci ba ci ay ay ay ay solina sax na muy soloo sax da koy dëppale sunu siyent bi lam sax lu weex dal ga ca na tooge buy dox na muy doxe melukaat na muy waxe dox bu gaaw ba ak eh, xet gu neex gi muy eh, taqo waxtu nekk nga xam ne kon lépp man nga ne ba ci ba ci ba ci eh, na muy jëfandikoo aw ñam ba ci lay tudd nelaw ko su néew ci moom na muy waxe te wax sax daan néew lu may tudd yàlla ak ak ak jàng alxuraan kon man nga ne kon léppam rek da koo def doon xentu kon ngirum yontu saa salaam ci biiram ak bitteem nga xam ne mooy soxlaam sax moom moom doo ngay soxlaam sax far aslamtu nafsi li rabbin la sharika lahu ma allati qafuhu shughli wa xaajaati jibal naa sama bopp yàlla mi nga xam ne kenn du ko bokkale kenn waaye ànd ki nga xam ne xentu ko xentu sunnaam may sama soxla may sama aajo amu jeneen laysa li laysa li yawma xaajaatun uammiluha si waqti fa ika xafwal xalbi wal badini nen tey ji da uma jenn aajo ju may mbébét ju weesu xentu saw doxin yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye royu waaye xentu xol ak xentu yaram mooy dama ko liggéey ci sama xol ci sama pas-pas waaye di ko liggéey sama jëm sama yaram inni muhaahidun ala ala taxayyudi bi sunnati nuxtaar tuulal abadi nee na man de maa ngi kóllëranteeg yàlla ci tënku gi may tënku ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diiru jamono banaytu taatee bi tibaa'i bi dikri wal xadiisi wal ijmaa'i ne sama topp yàlla lépp dama ko tabax ci alquranul karim ak xadiisu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak la borom xam-xam yépp daje Eh, lañ dëppoo kon mooy lépp nda ko teg ci lislaam te ko ci sunu si yent bi saa salaam di ñaan yàlla borom subhaanahu mu dimbale ko ci ma am li saqaama mooy jub ako sax dàkk nag ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy soppeem léppam wa min hurumtu listiqaamata abad fi sunnati muxtaari xayri man abad wa an wafiqi ila tibaaci sunnati ahmad altawil albaai wajal hawaaya taabian lissunna waltaqni daareni kulla fitna nga xam ne kon ñaan na boromam mu saxal ko ci sunna sinu saaslam waaye dëppoo nag ak dëppal léppam ak topp sunnaam waaye defal ko bànnee xam itam bànnee xam nekk luy topp sunna sinu saaslam nga xam ne wax na lu bare bare bare bare itam ci dénk nit ñi ak jëmale leen ci ñuy topp sunu si yonent kon dey tàbbi ci lam la wax bokk li mu léegi mooy tegal ko nit ñi ci aw yoon ba tax soññaa ba tey ci ñu tënk ci tënk ko ci sunu si yonent bi saasam ayuhal xawmu saari'u littibaa'i sunnatil Mustafa raisi siqaati yéen yéen nit ñi rikwaay gaawantu leen jëm ci topp sunnas Mustafa Mustafa sallallahu alayhi wa wasluku nahjahu jami'an tafuzu birida rabbikum wa bil jannati jumlatul xayri fi tuqa bittibaai sunnati mustafa al ali sifati yéen ñëpp soobu leen ci am ngërëm kon da ngeen texee da ngeen tuufoo ngërëm ngërëm seen borom da ngeen ci jëme jëlee ay aljanna nee na mboolim yu yépp ñu ngi ci ragal yàlla ak topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam néewul wala takun mustamilan illa bima yuwaafiqu sunnata mimma ulima nee na bul jëfandikoo lenn lu may danga koo dëppale sunna bi salallahu alayhi wa sallam laa tatawajjahoo li gayri lfaida walaasimu wahiya alqaida bu leen jëm ci lenn lu amul njariñ waaye lu ngeen di jëmin na ngeen ko dëpp na ngeen cay taqoo suñu suñu yéen saa loolu boo ko toppee lu gudd a gudd gudd la wax na ci lu bari wax ne loo xamut na laaj boroom xam-xam yi waaye na topp nag na roy ki topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam fal tasalil aalimu waxdul li sunnatil muxtaari xayri man waaye itam kii jaamu yàlla na ko ci ñuy topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal yaqtadi muttabiin li sunnatil muxtaari ahmad al amin waaye itam mu moytandikul itam xuppe lool ci képp ku du topp sunna si yonent sallallahu alayhi wa sallam lam ko mën a jural waylun liman bada lahun xiraafu an sunnatil maahi awin siraafu waylun wa fitnatun ma al li taariki sunnani fii zamani toskare ak fitna ak ñàkk lépp ñaan la nga dafa bàyyi bàyyee topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man lam bi rasulillahi muttabi'a man fii diini fa huwa maghrurun yaran liqama képp koo xam ne toppul xëntuwul sunna si topp ay jegoom ci diineem kooku ko waru la koo xam dana daje mbugalum yàlla subhanahu wa taala wa man lam yalid nahjahu yuntazar bi xullin saqilin wa naarin la fo képp koo xam ne toppul ngiram moom yonent saa sallam ña ngi koy xaare ay jéng yu dis gann ak sawara wuy lakke Allah Sunu bu rëy boobu mu doon liggéeyal yonent bi saasan taxoon na tax na te liggéeyal ko ci géej gi ba liggéey ba sotti ànd ak natt sun bon doon teg mu nekk natt yu diis yu metti yu tar bam liggéey ba sottee nag sun bon defal ko ci ci ay ngëneele ki xéewale ki darajaat loo xam ne rëy na rëy goo xam ne na dayo ba ak cantam waaye na mo xem ci catum ba tax mu woote ne képp ko xam ma ci santale yàlla kon bisu màggal bisu sant yàlla la mel nag yax na ko woote tuuti ndax bi ñëwee njaareem ba ca atum am sachin la ci mbindum sëriñ Mawlaay Buso atum am sasin la ko digle sëñ mu laay dafa bind wax ne bokk na ci leen suñu boon defal tawfiq ci sëriñ Tuuba mbirum ndigalul màggal gi jaar gum jaar ci loxam muy fukk fan juróom ñett ci weeru safar mu ne bokk na ci tawfiq ja bi nga xamee ne bis bi jege na ca atum am sachin muy atum junneeg ñett téeméer ak ñeent fukk benn lu jiitu ndigal li tuuti ndigalu màggal gi ne dafa dëppoo sama mag sëñ Mahmoudou Mbuso bii yónnee ci sëriñ bi hadiya ab gàtt ànd ci boo xam ne la mu jaar ci man neen bi ma ko xibaaree sëriñ bi wax ko ko ne ko ab gàtt ka ñëw na fi waaye aw béy la mu digal ma ne ndax man nga ma koo ndax man nga ma ko wecc weccukul am xaaf nga mën ko ah, dana mano mais bu ma dir indi indi xaaf moom wecc ko bi indi xaaf mi ci la ma digal ne ma naa ko ko téyal te ci digalam <coughs> biñu àggee fukki juróom-ñett ci weeru safar nag ci la ma woo digal ma ne ma li ma yàlla defal ci ay may ak xéewale ki ngene lépp ak yéene li ngeen am ci ay ngeene li ko xewal lépp yéen yéene ko maa ngi ko amee yéen yéene ko amee ci bis bii muy muy muy fukki juróom ci safar daa may digal ne ma naa rendi gàtt ba wuutu ko ci ci yéene ci màggal gi nee na ma topp ndigal la mu ko defee ba noppi mu ne ma danga ko séddale ñaari ñaari xaaj nga jox ko sa ñaari bàjjan diw ak diw jëruñu àgg tur ya ngir ñu toppatoo ko daal leen daal leen jox la ko war a yéwénal nee na ba mu àggee nag dañ ko toppatoo ba noppi nee mu leexal lu ci ñu nag mbooloo mi ak dëkkandoo yi ñëpp daane bis wi saa bu ñëwati nag ma ci santal yàlla gannaaw la war sëñ Balla Faali Jeng ngir mu yëgal taali bi yëpp ne joxe naa ndigal ci saabu fukki fan juróom-ñett ci weer safar dikkatee lu waay mën na ma ko ci defal li dali ci ginaar ba ci gileem kon màggal gi da ci dégg kon bernde la màggal gi bernde rek la yi ci dolliku yëpp da caa dolliku mu jàng alxuraan maag xasida yaag tudd yàlla yaag sikar yaag lépp da caa dolliku waaye jëmmi bernde mooy mooy màggal gi la ko findeel mooy bi ko njëkkee def moom ci boppam ci gàtt boobu diglewul jàng alxuraan diglewul jàng xasaayid may rendeb gàtt terle dong la ca def ba muy joxe digal daa daa li dali ci ganaar ba ci gileem la wax tudd ci leneen kon la ci dégg mooy kon màggal ga mooy bernde ngir gannaaw dañ ko sant yàlla nag kon lu cant gën a sell gën a yaatu boole ci jàng alxuraan ñu ko ca boole jàng xasi na Sëñ Tuubaa lépp mu alxuraan la lu muy tàmbali alxuraan da tàmbali moo koy tëj mooy ca digg ba kon alxuraan ji doon ci doon lu ci am solo xasaayid yi salaatu al nabi lépp te xasida lépp gannaaw alxuraan lépp nga ca biir kon ber na mooy mbàgg kon nañ ko gën fonk gën ko jox gën ko gën ko jox warum baax a kon mu doon sant yàlla bi ko door a tàmbali nag dañ ko daan defe kenn ko nekk fa nga nekk waaye gannaaw bu sëñ Fallou doonee sëñ Touba nag la joxe ndigal na ñu indi ko fii ci Touba ndax wane ne lum doon defee ko Touba moo gën defee ko feneen sëriñ biir nag <coughs> yàgg wax ne moom it gannaaw ba amee lam lam bëggoon lépp na lam la yitte mooy sant yàlla sante ko fii ci suufam xaawaltu shukrallahi fii turaabi baada jamili sabri fiqtira bi maa ngi jéem a sant yàlla fii ci sama suuf fi ma dëkk gannaaw bu ma muñee muñ gu rafet ci sabatu mu ranke mel ni nag e, defe gi Tuubaa ak Daaru Salaam itam mel na ni gannaaw bi gis nañ gis nañ ci mbindum sëñ bi mel ni mel mel ni loolu naka jëkk lu mu yéene woon la nawaytu shukrahu la daa daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa qilaam nam na ma sant sama borom fa daaru ak fa tu fa sama tuubaa ci sama jëmm ak ci sama xalima nawaytu shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda mi tilminan fas naa ko yéene sant moom sun borom te jaar ko ci farata ak sunna ca ñaari barab yooyu mi daar salaam tuuba waaye ak ca daarul minan yéene naa ko sant itam ci lépp lépp lu dagan kon lépp lu dagan rek may na ko def ci màggal gi lu baax parce que ko yéene sant ci lépp lu dagan tam tànnal ma ko te womatal na ma ce loole loole tono nawaytu shukruhu bi kulli ma abaax waxtaarahu liya waqaada li rabaax nee na itam sama yaxan dama doon yaxantu de tono naa ci muy liggéey ba mu liggéey bi muy liggéey saas moom la tuddee tono moom la tuddee yaxantu ne sama yaxantu moom de tono wu naa ca ci sama tumuranke ga waaye maa ngi sant sama borom nag fii ci sama suuf gannaaw bu ma defee la mu doon wut lépp rabixtu fi tijarati fi gurbati wa ashkurul jamila inda turbati waxit damay saxaala sant yàlla ba kër muy aljanna ci lu muy ànd waru wala muy ànd ak genn noono udimu shukrallahi lil jinaani bila taxarrurin wala udwaani fas na yéene sant yàlla ci sama dëkk ba sa sama dëkk foofu sama baat sama dëkk bi la fa jëfandikoo waaye sunu bon nekkal na ma te sellal na sama sax foofee xaawaltu shukrallahi inda baladi balad dana firi am réew dana firi ab dëkk wa lillahu wa safa xaladi nan fay ga fay ga sama fay nag ca sama suuf sa moo ma faaral tiis yaag mettit yama nekk yoon ca sama tumuranke ga maanaa mbégte yi ma sama jox ak xéewali fàtteeloo na ma tumuranke gaag coono ya ma dajoon ca fa ma nekkoon jazaau inda turbati maha muqaasati inda xurbati kon nag damay damay jéem a sant yàlla ci jàng alquran kon alquran ji ca di ko sant itam ci tawaalif yi muy di bind jëmali ci yoon moom moom borom subhanahu wa ci yoon bi ànd ak nag lépp lu neex lépp lu neex lu ñuy bernde muy luy ruux luy bégal luy bégal xol xaawaltu shukrallahi bi wa bi tawaalifi ma al sun borom bégal na ma bég moo xam ne ak ragal door ci toppati mukk waaye itam ca daraje muntaqa la ma ko sun borom defale ma nga xam moom moomu jéggal la weesu woon lépp basharani bi xayri taxwifin safar bil muntaxa baaxin li ma mada kon nag yéene ako sant yeneen naa la sant yoo borom ci at mu nekk at mu nekk ak weer wu nekk taal xaan lekk na mooy sama sukkandiku waay nawaytu shukruhu alayka kulla aam wa kulla shahrin wal kitaabu lii aam fas naa ko yéene sant yéene naa ko sant ma borom ci samay xalima yéene ko sant ci leneen lu dul xalima yét yow mi nga xam ne yaay borom jawaamilu kalaam nawaytu shukruhu alayka bi qilaam wa yaasa jaam yaasa jaamal kalaam borom jaamal kalaam yu jul yentu fas naa ko yéene sant itam cant ko fees dell suuf fees dell asamaan goo dana gërëm loo ngën ji dana yàlla mi nga xam mooy ngën ji ab santaakoon and koy sant ko nekk rek yàlla nga fekk ci ab ci ci ci ci ci ci ci ab liggéeyam ndax yàlla ab santkat la in wa ghafuurun shakuur cant ko fees dellu suuf nag defe naa tey lañ ko mën a dégg mi nga fi léegi tey fépp ci àdduna la ñu màgg màggal Tuuba ci Amérique ca Chine ca Arabie Saoudite feneen foo mën dem fépp ci àdduna la ña ngi fay dundal màggal kon ma ngi sant na yàlla cant ko fees dellu suuf cant ko fees dell asamaan gëm naa ni ñu koy màggale fii ci suuf noonu noonu la ko malaaka yi asamaan màggale ci kaw asamaan kon may cant ko fees dellu asamaan nawaytu mil al ardi ma asama xayra shakurin yurdi nee na man de sama borom sant na ma sama borom yi bar asamaan suuf sant na ma cant goo xam ne mandragaal na ko ca tàndeef yëpp mboolem ñi yàlla tànn kuy nitu yàlla ku nekk xam nga ne yàlla sant na ma ndax mandragaal na ko ci seen kanam chakara nisul aradina sama shukran la daa axyaarihi xadru sima nen luñ bind la fa tànneef ya yow son boo dee gërëm naa la waaye yow gërëm nga ma kon nag gërëm nga ma bégal nga ma teral nga ma xéewalal nga ma raditu anka wa radita anni bashartani bi karamin wa manni neen sama lépp la yàlla sant yàlla sant na sama lépp cant goo xam ne ko ca arasa kursi nga xam ne mooy ngën di yéegukaay ba shakara kullillahu shukran yarqa lil arshi wal kursi ni amal marqa nen itam la ma doon sàkku diggante asase ba ci jam sasin atum junneeg ñetti téeméer ak benn ànd ca la yoon la la jal benn sosu yoonu murit ba ci jam sasi mi nga xam ne ñetti at la ci tegaat ñibbisi Tuubaa neen diggante boobu la fi doon la ma fi bëggoon def lépp la ma yéen woon liggéeyal yàlla lépp liggéey naa ko fa waaye la ma doon wut ci sama borom léppi nag amee naa ko ci diggante boobu li jam sasin min asashin xawaytu fillahi war rasuli maa moo tax kon nag coona ak lor ak fitna dootu jëm si ci man mbokk tey lama lama lañ ma tànn lépp wammatoo ne dikk ci man lu may ci benn coono lam ya lam yanxuni fiihi aw fii safar wan xaada lii maxtaaru bila safar kon mu mel ni kon cant goog yi la woote ñu santale ko yàlla man mu bere woon rek de sant yàlla fe mën naa sunu ba mën na ko nangu mën na ko bañ a nangu waaye koy sant yàlla Sëriñ Tuubaa nga koy defal moom nga koy defle ab liggéeyam ca nga nekk kon da ngay am kóolute gu wér ci ne loolu sunu di nangu la moom ndax Sëriñ Tuubaa léppam la yàlla nangu kon ci biiru cantam la ñuy sant kon dañ cey gém ni kon lépp luñ ñu ca def sunu borom nangul na ko cant gi nag kon jëf la ñu waajal ko ñiy jóge feneen di ñëw nañu xam ne lu màgg moo leen yëkkati dañoo war a taataan si war a root si kuy root nag te fa ngay roote ndox ma sell te doy sëkk la jiit mooy nga raxas sa ndabam set wecc ndab yi mooy xol yi ñu laabal xol yi xam ne dëkk bi ñu jëm si dëkk la ba am ma ki ñuy jëm si ku yàlla tànn la ku yàlla defal defa lépp la kuñ mën a sàkko ci ngërëmal yàlla man caami lépp ci moom ba tax na kon ñu raxas ndab mooy laabal xol yi ko wicci fas yéene taatan si te yàlla rek a tax moytu mbërënt moytu ay caaxaan am po am tëgg bari na fi lool waa nañ xam ne loolu lépp bokku ci màggal màggal lépp lu sell la lu sell rek ko lal kon lépp luy mbërënt am po ak po nañ ko moytu nañ ko daw bu baax a baax fexe ba jëf ji sell la bu ñëwee itam ñu góorgóorlu ci njàngum alquran mi góorgóorlu ci njàngum alquran mi waaye nag góorgóorlu ci xasida yi bu baax a baax rawatina xasida yi tagg yi ak xasida yi ñaan yi góorgóorlu ci bu baax a baax a baax a baax ci fexe itam ba seen alal di fi dem fexe ba sa alal dem ci la nga ci def lam la mënul jure ci aw yiw suñu rek moo xam na mu toll waaye nag màggal si ak dikkutu dikku Tuubaa daa niroo te wuute dikku mooy ñëw rek di soloo ko sumbee ko ko foto woo ba màggal gi jeex nga dem ñëw da ngaa ñëwoon rek da ngaa tukki si woon waaye màggal si nag mooy ñëw nag jëf ñàq fi génn sa sa sa wala nga def fi sa alal wala nga def fexe ba sa dara daal dem ci bernde yi gannaaw si dafa dafa sant yàlla te sant sant yàlla bernde ci jiitu nga fexe ba sa alal dem ci loolu lu ko ëpp nga del amut su boobaa nag ka ko def ka ñëw Tuubaa def ko màggal si na ka ñëwut def ko feneen màggal na kon màggal ak màggal si ka ko feneen màggal na ki ñëw def ko màggal si na ka ca deful lenn nag nga xam ne ñëwul Tuubaa wala ñëw na tubaa sax waaye nag yem waxoon jéemu ca dara kon boobu mooy dafa tukki si tubaa dafa ñëw dafa ñëw Touba rek kon la na mooy fexe ba sàmm war may war may barab bi ca nañuy solo comportement ya nañuy waxe nañuy doxe moytu surtout nag jaxasoo góorub jigéen góor jigéen donte barab bii nag moom alhamdulilah daayira ma xam ne ñuy góorgóorlu bu baax a baax a baax ba fexe nañ ba jaxasoo du am ci jumaa ji waaye niñ leen fexe ba amu ci biir jumaa ji bu ñu génnee ci mbeddeen nañu fexe ba ba moytu loola dana jafe waaye nañ ci nañ ci góorgóorlu seen kem kattan ndax lépp lu ñu defal eh, sëñ Tuubaa lu mu gën a sell ndax la ma ne yàlla ko ku teel te ko tey rek lay nangu in laa tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba sëriñ Tuubaa moom it lépp lu muy nangu lu sell lay doon da léppam dafa dafa sell dara taxu ko dara taxu ko fenn kon nag ñu xam ne kon Eh, loo fi mën a daj itam ci coonaak jafe-jafe fi naag ndox mu bari meeg xew yépp buñ fàttali ko la sos bi dana woyof toy moom mi ko yàlla jox day am na nangami at yoo xam ne juróomi at yoo xam ne taw bu mu taw ci kawam la ko sotti ko taatu ga ñu ko sànniwoon ca Mayomba juróomi at taw nga xam ne ta ta réew yooyu seen daanaka juróom-ñetti juróom-ñetti weer yëpp day taw nga xam lu ñetti taw ci ci at ma daal xëy na ñetti weer waaye réew yëpp day day taw taw yëpp ci kawam la ko sot la ko daal sotti ko boole ko nag godd ya fa nekk ak yay matteeg yay gaañeeg yay jameeg yépp ne fa mu di ko dund kon lu ñu mën a dal ci màggal gi taw yu bari ndox meeg yëpp buñ fàttali ko loolu dana woyof taw yu ci noonu coono ba ngay daj ci yoon wi itam lépp ak loo mën a daj rek lu mën a doon fàttali ko rek bis bi am moom lam daj lu nekk daj na ko foofe nga xam ne yenn yi ay finnal yoo xam tubaab yi ñoo ko koy teg am ci yoo xam nag suñu borom ci boppam moo koy tegal boppam ngir natt ko ndax dafa am lum lu mu doon lu mu doon wut te loolu njëg lay jar te njëgg mooy lii ñu koy teg te lu leen def dañu ko mooy mooy takkal takk nañu koy garab téeri koy fetal suñu ba musal ko ca wahabi fi thulatha maa yuxrijul asra wa thalatha waaye tam waxaa ajaana ni qaha min jublatan dama neen suñu boom goreel nama Euh, ci mbo musal ma ci mbooleem noon yi seen xeej yaag seen nganaay yëmba doon méb méb yëpp war na leen ba lañ ci bëggoon amuñu ko waxaanathum armahuhum wal madafi'u gas nañu kàmbu taal ko ba dugal ko ci biir lu ne def nañ ko ko kàmbam googee lay wax ne radama rabbi ma aduwi ya xafar li darori wasaane ni am man kafar yàlla mbëdd na kàmbaga sama noon ni gasaloon ngir bëgg ma lor te ñoŋal na witan ci ñi ne ñu yéefar la ñu weddi yàlla yëpp kon nekk yu taal nañ sawar dugal ko ci biir mu la si Abdullahi Salim Al yi nga xam ne boo doon way xar baax yi Sëñ Tuubaa def yëpp nga xam bu ci nekk na ko ca wax naarun ta ajjaja hal yunji tariha biha illa munaji xalilillahi min naari sawara wi bérëx-bérëx di tàkk ana kan moo la ca mën a musal kudul ka musuloon ibrahima ca sawara bañ ko ca tàbbale gannaaw mu amee nga xam ne bañ gannaaw bi ñu ko jëlee libéré lambar lañ ko yóbbu lambaree ne googee fala sax juróomi at yi nga xam ne moom laa la dañ ko sànni ci gentaatu garab de gu ne ci tefesu géej gi nga xam ne foofee juróomi at ya fa nekk taw bu mu taw ci kawam la ko sotti ko demoon na ba gannaaw mu def am mbaar moo xam ne ñongal téere yi mu yor la ci jublu ñongal téere yi ndax mosaan taw rek day jël téere yi laxasu ko ab bokk ko ta taf ci taatu garab ngir lépp ngir bañ bañ téere yi tooy tooy bis nag muy muy muy taw ba mbaar mi daano mu laxas téere yi ci dar bi tax taxaw ci taatu garab fekk am na benn benn nappkatu jën boo xam ne da daal napp foofu ci géej gi Sëriñ Tuubaa li ñu ko daan xam nga am na salaire buñ ko jox di ko jox weer nekk salaire boobee saa bu ñu ko mësaan jox nappkat boobu la koy jox wala mosaan rek nappkat nappkat bu for ko gannaaw mujj nag dem def mujj def kër nag ci wetu tefes gi moom nappkat bi ngir gën a jege ndox mi waaye ak li muy jëlee ci sëriñ bi waaye sëñ biir boole woon nañu ko benn mu mufattish maanaam benn surveillant boo xam ne moo koy surveillé dañ dañ dañ doon jaxa dañ doon tere ko dem ci moom mbaa ko jaxasoo moom bi nga xam ne mbaar mi daanu na nappkat boobu daal koy jël si ne ko ñëwal fii sama kër nga nga seetal waañ wi te dugg fa seelof ba ba ndox mi jeex an ca waañ wala dugg buub ko fanaan fa ba seet bi mu xëyee ne mu ne ko nañ ànd maag sama soxna ñu def jàppale nga defaraat sa mbaar mi moom mën ngay fexe bàyyi soxna si ñun ñaar ñu dem man yaa ba nga koy jàpp li defen mbaat mi nag far yàlla dogal surveillant ba yem ca daal ko jàpp moom it tëj nañ ko ci diirub at moom moom nappkat boobee nañ ko at ca loolee jàppale ko jàpp ci defaraat mbaat mi képp raatib boobu fukki dërëm la doon doon mooy salaire bi nga ko joxoon fukki dërëm la doon doon weer wu nekk waaye bi nga xamee ne def na lii nag bañ tëj nappkat ba dañoo taxawal nag loolu ñu ko doon jox tey ba mu mat at ñu door ko indil xam naa loolu lu gudd gudd la wax nu mayuñu ko xam naa bu ñu desee incha allah gën cee yàllal yàlla suñu dimbale wala defal tawfiq xëy nu ci ñëpp te saxal ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw voilà. <laughs>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 أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقائه وتقدس وتنزه في أزليته فلا عين تراه حكم بحكمه في خلقه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 فإنه زمان خل قل خيره وكثر بلاه واشتغل كل منا بطلب دنياه وغفل وغفل الغافلون عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وصار الدين غريبا كما كان مبتدا فوا أسفا waa qillata xiilata fi yowmin tazharu fihi alfadaa'ih wa tashhadu alayna fihi aljawaarih walxaakimu huwa allah yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yowma idin lillah wa fi lxadiisi arbacun min alshaqaawa jumuudu lcayni wa qaswatu lqalbi walxirsu wa tuulu lamal وفيه عظا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون وتفرد في صفات كماله فلا تخالطه الظنون أحمده سبحانه وتعالى بمحامده التي يذكره بها الحامدون وأشكره بشكره الذي تقر به العيون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل ان يكون واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تشرفت به الانبياء والمرسلون اللهم فصل وسلم عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم يبعثون أما بعد فيا أيها الناس ما هذه الغفلة التي أنتم عليها عاكفون تسمعون المواعظ كل جمعة وأنتم عنها معرضون أتظنون أنكم في الدنيا مخلدون أم تتوهمون أنكم لا تموتون ولا تبعثون أين الأنبياء وأين الأولياء وأين المرسلون أين الأمم الماضية أين آباؤكم الأقدمون قد صاروا والله في التراب وهم لنا ذائبون متقطعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي الحديث أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم وفيه خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هداء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر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 assalaamu aleykum. assalaamu.